juróom lu tax yàlla sàkk nit salaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci leen mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu jàngoon nanu naka la yàlla aji sax ji sàkkee asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp yàlla sunu boroom sàkkoon na lépp ci juróom benni fan te jëfandikoowul dara lu dul kàddoom gisoon nanu tamit lu taxoon yàlla sàkk àddina si sàkk na lépp ngir nit ki mu fasoon yéene bind gis nañu ci loolu ni yàlla baaxe ndax li mu defaral nit béréb bu rafet te neex bu mu mën a dëkk ci naataange gu mat tey jii nag fas nanu yéen a gëstu ci mbind mi ba gis naka la yàlla binde nit ku jëkk ka te it ci ndimbalu yàlla dina nu seet ba xam lu tax mu sàkk nit ci tawret ci téereb njàlben ga ci saar bu jëkk ci aaya ñaar fukk ak juróom benn yàlla aji sax ji nee na nanu bind nit ci sunu melo ak ci sunu misaal muy yilif jëni géej gi ak picc asamaan mbooleem jur gi suuf sépp ak lépp lu ci raam noonu yàlla sàkk nit ci melokaanam ci melokaanu yàlla la ko sàkk mu sàkk leen góor ak jigéen am nanu fi dëgg gu xóot te am maanaa lool dëgg gi ñépp war a xam mooy yàlla sàkk na nit ku jëkk ka ci melokaanam xalaat leen ci yàlla bind na nit ngir mu niroog moom ci lu wér nit ñi ñu am maanaa lool lañu nit moo di mbindeef mi gën a am solo ci lépp li yàlla sàkkoon ndaxte nit rekk la yàlla sàkk ci melokaanam léegi nag lu loolu di tekki lan la kàddug yàlla bëgg a wax bi mu naan yàlla sàkk na nit ku jëkk ka ci melokaanam tontub yàlla nu ngi koy gis ci saar ñaar ay juróom ñaar mu ne noonu yàlla aji bind ji sàkk nit ci pënd suuf sol ngelawu dund ci ay paxi bakkanam mu daldi nekk boroom ruu gis nu ci aay bi ne ba yàlla sàkke nit ku jëkk ka sàkk na ko ci ñaari wàll maanaam sàkkal na ko yaram ak ruu nit du jëmm rekk waaye yaram ak ruu la yàlla sàkk na nit ci ñaari fànn déglu leen di mbind mi wax benn noonu yàlla aji sax ji bind nit ci pënd suuf ñaar yàlla sol ngelawu dund ci ay paxi bakkanam nit daldi nekk boroom ruu ci kaw li nu jàng ci mbind mi gis nanu ne bi yàlla di sàkk nit dafa ko jëkk muulal aw yaram lu tax yàlla jëkk bind yaram wi ndax te yaram moo di dëkkukaay bi mu mën a sol ruuwu nit ndax xam nga ne sa yaram mooy sa kër fi sa ruu dëkk moom la mbind mi wax bi mu naan yaram wi nu solo ci kaw suuf dafa mel ni ab tànt yàlla sàkkoon na yaramu nit ngir ruu man cee nekk naka la yàlla binde yaramu nit wu jëkk wa mbind mi nee na yàlla aji sax ji bind na ko ci pëndu suuf ci jamono ji nu toll xam nanu ne am na daanaka ñaar fukki produit chimique ci pëndu suuf te boroom xam-xam yi xam bu baax yaramu nit wax nañu ne ñaar fukki produit chimique yooyu yépp dañu leen di fekk ci yaramu nit looloo tax yonent yàlla daaw daawuda bindoon ci sabur ne aji sax ji xam na li ñu nu sàkke mu ngi fàttaliku ne pënd lanu waaw yaramu nit pënd kese la wante loolu tekkiwul ne amul njariñ am na ci yaramu nit lu ëpp juróom ñaar fukki junniy junniy junniy cër yu ñuy tudde ay selul te cër yooyu yépp dañoo ràbboo te déggoo ci bépp tenqo aw yaram daal kiimaan la yàlla def na ci sunu yaram yóor xol xëtër bàq res butit yax suux der siddit bët nopp bakkan gémmiñ ak yeneen cër yu bare bare te cër bu ci nekk xam na waru garam yàlla dong moo mën a sàkk loolu moo tax yonent yàlla daawuda bindoon na itam lii borom bi maa ngi lay sant ci lima nekk mbindeef mu xel dajul te yéeme say jëf ñoo kéemaan xam naa ko bu wér waaw yaramu nit kéemaan gu doy waar la wante ndax yaramu nit mooy li yàlla sàkk ci melokaanam déedéet loolu mënula nekk ndaxte yàlla soxlawul aw yaram yàlla xel la yàlla sàkkul woon jëmmu nit ci melokaanam kon nag lu baat yi ci mbind mi di tekki yàlla sàkk na nit ci melokaanam lii lay tekki yàlla ruuwu nit la sàkk ci melokaanam gis na nu ba noppi ne bi yàlla jëkke sàkk yaramu nit ci pënd suuf amagul woon dund néew rekk la woon lu tax yàlla jëkk a bind yaramu nit soog ci def ru lu tax yàlla mi mën lépp sàkku ko benn yoon rekk ni mu sàkke woon yeneen mbindeef yépp lii moo tax yàlla dafa bëggoon a xamal nit ki mu fasoon yéene sàkk ne nit ci boppam amul benn doole ci lu jëm ci dund gi nit mënula jox boppam dund gi te mënula sàkk dara luy dund yàlla képp mooy aji dund ji te ci moom dong la dund gi nekk dund gi jógewul ci nit mayu yàlla la kon gis nanu ni yàlla ëfewoon yaramu nit ki mu bindoon sol ngelawu dund ci paxi bakkanam nit daldi nekk boroom ruu yaram wi yàlla sàkkoon tàmbale woon na dund lu tax mu doon dund ndaxte yàlla aji dund ji ëfoon na ko sol ko ruuwam naka noonu dund gi nekkoon ci yàlla léegi nekkoon na ci nit ki nit daldi nekk boroom ruu kon lan la yàlla sàkk ci melokaanam ruu gi yàlla sàkk na ruuwu nit ci melokaanam ndax xam nga ne am na ay jikko yu nekk ci xelum yàlla te nekk itam ci xelum nit bala nuy àggale sunu njàngum tey danu bëggoon a seet ñetti jikko wala ñetti melo yi nekk ci yàlla te nekk it ci nit sunu xalaatee ci ñetti melo yi nit bokk ak yàlla dinanu mën a gën a dégg li nuy jàng lu muy tekki yàlla sàkk na nit ci melokaanam ñetti melo yi yàlla sol ci ruuwu nit ñooy yii benn yàlla may na nit xel ba mu mën a xam yàlla ñaar yàlla may na nit xol ba mu mën a bëgg yàlla ñett yàlla may na nit coobare ba mu mën a déggal yàlla ni yàlla ame xel xol ak coobare noonu la yàlla solewoon ci nit xel xol ak coobare nanu xalaat tuuti ci loolu ci bu jëkk yàlla may na nit xel ba mu mën a xam yàlla tey xalaat ni yàlla di xalaate yàlla sàkkoon na nit ak xel mu am doole moomu ndaxte yàlla bëggoon na am diggante bu neex ak nit bu nu jàngee dund yonent yàlla ibrahima dinanu gis ni ñu ko tuddee xaritu yàlla ibrahima xamoon na yàlla bu baax te am diggante bu xóot neex ak yàlla waaye kàddug yàlla daf nuy won ne du ibrahima rekk am sañ-sañu nekk xaritu yàlla nun itam mën nanu nekk xariti yàlla yàlla dafa bëgg nu am diggante bu xóot te neex ak moom loolu moo taxoon mu sol ci ruuwu nit xel mu mën a ànd ak xelum yàlla xëy na mën nanu leeral euh, li ñuy wax ak benn laaj lan moo wuutale nit ak mala yi xel nit am na xel mu mala yi amul lu tax mala yi mënuñu déglu sunu émission tey ndaxte bokkuñu xel ak nun yow mii déglu nag lu tax nga mën a déglu sunu waxtaan tey ndaxte am nga xel mu ànd ak sunu xel naka noonu yàlla sol na ci nit xel mu mën a ànd ak xelam ci loolu warunoo xalaat ne sunu xel ak xelum yàlla ñoo yam mukk xelum yàlla dafa xóot te xamxamam bare ba raw xelum nit li nu ci war a dégg mooy lii yàlla may na nit xel mu xóot te am doole ngir mu mën a am diggante bu xóot ak yàlla yàlla bëggul nit mel ni mala yi ko mënula xam mala xelum mala la am te mënula xalaat ci yàlla am na gémmiñ waaye mënula gërëm yàlla ci li mu koy may li mu war a dunde am na ay bët wante mënula gëstu ci kàddug yàlla am na ay nopp waaye mënula xam dara ci lu jëm ci coobare borom bi wante nit ki yàlla sàkk ci melokaanam mën na gëstu ci mbind mu sell mi ba xam yàlla aji wóor ji waaw yow miy déglu mën nga xam yàlla moom ci boppam te am diggante bu neex ak moom soo nangoo yoonu mucc wi mu tëral dinanu faramfànce yoonu mucc woowu ci njàng yi di ñëw waaye li nu war a jàpp tey mooy lii yàlla may na nit xel ba mu mën a xam yàlla wante am na leneen lu yàlla sol ci ruwu nit bi mu ko sàkkee ci melokaanam mooy xol yàlla mayoon na nit xol ba mu mën a bëgg yàlla waxunu xol bi pompe deret wante li nga yëg ci sa ruu maanaam say sentiment say xalaat ak say mébéti xol yàlla mayoon na nit ku jëkk ka xol bu dëppook xolu yàlla yàlla mën na bëgg bañ bég am tiis ak yërmande ak ñoom seen yàlla am na xol kon nag yàlla soloon na ci ruuwu nit xol ngir mu mën a bëgg li yàlla bëgg te bañ li yàlla bañ yàlla may na la xol ba nga mën a bëgg yàlla moom ci boppam ak sa xol bépp yàlla dafa bëggoon a am ñu ko sopp looloo tax mu sàkk nit ci melokaanam te may ko xol te am na leneen lu yàlla may nit ki mu sàkk ci melokaanam loolu moo di coobare yàlla soloon na ci ruuwu nit coobare ba mu mën a tànn déggal ko yàlla ci boppam am na coobare ak sañsañ ngir tànn ndax dina def dara wala déet kon nag bind na nit ngir mu mën a tànnal boppam yàlla mënoon na sàkk nit ngir mu def coobareem te du am lu muy tànn waaye yàlla sol na ci roowu nit coobare may ko sañ-sañ ba mu mën a tànnal boppam topp yàlla yàlla bëggul woon a sàkk ay machine rekk maanaam yàlla sàkkul nit ci melokaanu jant bi di fenk tey soo bés bu nekk te amu ci pexe jant bi dafay def coobare yàlla bés bu nekk automatiquement du noonu ak nit yàlla dafa bëggoon a am bindeef mu mën a tànnal boppam bëgg ko te jaamu ko yàlla may na nit sañsañ bu rëy nit mën na tànnal boppam topp yàlla walla topp seytaane faale kàddug yàlla walla xeeb ko yàlla du la gëmloo ci doole ngir nga bëgg ko te déggal ko mbëggeel suñu la ko forcé dootul tudd mbëggeel yàlla dafa lay bàyyi nga tànnal sa bopp yoon wi nga nar a topp wante ca mujj ga dina àtte képp ku bañ kilifteefam ndaxte yàlla boppam ma tax mu sàkk nit loolu mooy li mbind mi wax yàlla lanu nekkal fii ci kaw suuf nekkalunu fi sunu bopp mbaa xaalis mbaa leneen wala keneen yàlla sàkk nanu ngir boppam yàlla sàkk nanu ngir nu mën koo xam bëgg ko te déggal ko ba abadan waaw ba abadan yàlla aji sax ji may nanu ruuguy sax ba faw coobarek yàlla mooy nu am ak moom diggante bu xóot te neex tey ëllëg ak diirub laaxira loolu moo tax yàlla sàkk nit ci melokaanam ndax am nga diggante bu neex ak yàlla yow ndax bëgg nga yàlla ak sa xel mépp sa xol bépp ak sa kàttan gépp ndax yaa ngi déglu bu baax kàddug yàlla ndax gëm nga ko ndax déggal nga ko walla ci sa yoonu bopp ngay aw bopp mbokk yi fii lanu war a yam tey nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen tàggu ba émission bi di ñëw su fekkee ne am ngeen ay laaj ci lu nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yàlla santaane bi mu naan nanga nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp ak sa kàttan gépp